ñu ngi leen di ñu ngi leen di nuyu ci diggu tedd gile te di leen ziyaara ci guddi gu tedd gile te di leen balu ci guddi gu tedd gile yal na yàlla boole defal nu jàmm yal na yàlla aar nu te yal na yàlla suturaan kaaraam ngeen ak suturaam rek a des ci àdduna bi leneen nekkul fi waaw yal na nu aar te na nu suturaal ah dafa fekk nag ay kilifa fi daje kilifa daara yi ak kilifa àdduna bi ak sunu bokki bopp yi ak sunu sëti daayira bi ñoo fi daje yam na yàlla def jàmm lu bëggoon waxtaan ak yéen rek te jàng fatiha ak juróom-ñett ayatul kursi buñ ca jógee ñu jàng juróom-ñett suratu quraish ñu soog a tàmbali ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu ndax juróom-ñett lu am solo la ci chiffre boo ko teqalewul waaw lu am solo la tabarkalla boo ko teqalee nag muy musiba kon yal yàlla defal nu yiw nu waxtaan rek ci barke guddi gi ak borom guddi gi tabarkalla mu mel na suñu déglu woon tuuti rekk waaw suñu déglu woon tuuti rekk mu baax ndax guddi gi dafa am borom te itam dafa gaaw a passé te itam yiw wunu fi jële moo noo yóbbu ba déwén ak jàmm yàlla xam na ko dafa fekk ku ko xam moom xam ni kuy njabootam du bëgg nga sonn waaye daa xam ni kuy njabootam yàlla du bëgg nga noppalu waaw yàlla moo nu bind ci coono il faut que ñu nangu ko waaw moo ko waxal boppam waaw moo ko waxal boppam ci kitaabam bu tedd bi nee na dafa bind doomu aadama ci mashaqa waaye bind ñu ko ci raaxa nanu ko nangu waaw waaye defe ni dangay jaaxaan rekk mu jeex loolu taxul nu ñëw fii waaw bu yeboon nangu rekk machaqa bi ayul nag ayul mu mel ni kon nag ci barkeem ak ci barke guddi gi yal yàlla mottali yéene yu baax yépp loolu rekk la noo ñaan tabarkal la di ko ñaanal kilifa daara yi di ko ñaanal kilifa àdduna yi di leen ko ñaanal yéen ñi nga xam ne ñoom lañu yéen lañu bokkal wëllëre wi te di ko ñaanal sunu bokk yi nga xam ni itam nooy sama sëti bopp yi te bokk ci daayira bi waaw na yàlla wattu leen te li ma wax ëpp naa xeeb ñaar rekk bi des mooy yàlla aar nu te nu waaw yooyu ñaar rekk bi des waaw li ci des yëpp caaxaan ni waaw mu aar nu te nu mu aar nu te nu mu am solo te itam yonent bi guddi goo ko tudde ak ko dajale ci mbooloo bala ngeen fa jóge dana fa ñëw waaw looloo tax boo yëgee présence am rek wax ko dara waaw mu yóbbaale ko mu gën ndax du tax du taxaw lu ëpp minute waaye fu nit dajale fukki nit rek ngir jëmmam dana fa taxaw loolu la ko yàlla may am nañu ko weddi nag ni mënul nekk ndax liñ koy dajaleel ci mbooloo ak fu ne naka la fay ñëwee ñu ni waaw jant bi yan ñaata dëkk lay tiim te jant bi yonent bi ko ëpp leer ka shamsi fii kabidi samaa'i وضوعها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا loolu mooy li ci nekk yonent bi ku ko tàntal bu ñëw fa waaw waaw bu leen téeméeri junni tàntit mu ñëw fa waaw ci benn guddi gi la wax de ba tax na kon nag daaw bi mu fi rombee yóbbante nañ ko وكفى الله المؤمنين القتال لنك وخر خينا نيكو ديغ سا خامو ني لوتا ما واخكو آه. لولو موي لي سي نيك بوغا ديفاي نك مو ملنا li mu jëfante ak yonent bi boole xam-xam yu mujj yi ak xam-xam yi ci digg bi ak xam-xam yi nar a ñëw yépp boole ko defal ko ko ci benn téere waaw moom la ko defal moo tax su waxee yonent bi ni ko desaluma ci téere bi dara waaw su ko waxee rekk lu mat a bàyyi xel la ndax bu ko wonee ni sàgganuma yàlla ku mu won ni la sàgganuma war nga dalal sa xel xam ni dara rëccu ko waaw nga xam ni dara rëccu ko tabarkal la bu ko defee ñu waxtaan ci loolu rekk moom cëram cëram la xëy na coow yi bare na coow yi bare na coow yi bare na coow yi bare na te ah xam naa li wolof di wax ne ñu piccu sagal garab gu mu yendu bu fa jógee garab ga dee ndax ah, dafa bare coow moo tax coow du defar dara waaw coow daal du defar dara waaye bu waxee ni ma farratna fil kitaabi min shay bu yëgalee yonent bi ni ko problème bu ngeen pose waxul faux problème bi problème bu ngeen posé mu aju ci démb ak bu ngeen posé mu aju ci tey ak bu ngeen posé mu nar a ñëw ëllëg solution mi ngi ci biir téere bi ma farat naa fil kitaab bi min shay yàlla ku mu wax ni sàgganuma war nga ko gëm waaw moom la wax yonent bi waaye waxul nag faux problème faux problème aada yee koy posé te yàlla nag foo problème waxu ca dara ndax concerné wu ko concerné wul ki mu bind waaye ki mu bind moo ci dugal boppam kooku affaire am la mu mel ni rek suñu yeboo bàyyi ci xel ndax dafa dafa bari doole te xam-xamam dafa jëkk te du tàyyi xare waaw du tàyyi xare لولو ما تبايي خل دو تايي خاري داخ بور لا بوغا خامني موم ركاي بور واو تا داف كو من منيكو واو واتا بو ني ني توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء من الملك بوبو انتر دي ملا بو ماك بانغا تشا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير واو. moom rekk kenn fekk ko ci li ci des yépp caaxaan la waaw li ci des yépp caaxaan la waaw dama dem ñu invité ma ca maro di introniser roi Hassan II ba mu dund ñetti mag ñi ànd ak man kenn ki ni yàlla may na ko tey li mu gën a bañ ci àdduna te muy nguuru mu ni bu ko suleymaan ñaanee ñépp a ko yedd waaw te wax na dëgg li ko yàllay fonk yépp ci chantier la ko bàyyi mu dee ca te daf daan ñaan dee ci biir néegam waaye moo ñaan nguur yàlla ku ñaan nguur mu fiir mu fiiri la moo tax mu bàyyi ko mu dem dee ci chantier ba ñépp janoog moom xam ni ndeke du buur yonent la lu mat a bàyyi xel bu ko defee mu mel na li mu wax yonent bi ni ko ñaari àdduna am àdduna bi bët tegu ak àdduna bi bët tegewul ko pourtant benn lañu woon àdduna bi ba tegu ak àdduna bi ba teguwul et pourtant benn lañu woon duggante ba mel ni benn lañu kaanataa ratqan xaq walla laa kaanataa ratqan fa fataqnaahuma c'est scientifique mais c'est plus que scientifique parce que c'est Dieu qui parle ce n'est pas le savant qui parle ah. le savant c'est un bricoleur Dieu c'est un créateur c'est pas la même chose ah. mel ni ko nit xam nga ko baax na xam nga ko baax na ndax koo xam ni xam-xam bi muy jëfandikoo fi la ko fekk jumtuwaay yi muy jëfandikoo fi la ko fekk war na xam ni am na ku ko ëpp xam-xam waaw kooku loolu rekk ci nekk te lu mat a bàyyi xel la waaw su ko defee kaanataa ratqan fa fataqnaahuma waaw yombul ndax farq ak farq ñoo fi nekk farq savant bi mën na ko jëfandikoo waaye risque a ngi ci waaw farq savant gi mën na ko jëfandikoo waaye risk a ngi ci fatq nag yàlla rekk ko ko man moom rek ko man ndax foqati ak poqati bokkul foqati dafa am risque yaa ngi bëgg dindi dara ci dara te ci foqati nga ko dindi mën na fett mën na damm wante bu dee poqati nag dafay dangay ànd ak tenkoñ te loolu borom bi rekk ko man fexe ba ñaari àddunaam yi bi ñuy tuddee xayba ak shahada ñu ànd duggante ba nga defe ni benn lañu mu ñëw ci tenkoñam jàpp bii jàpp biir fexe ba bii mu rocc ko mu nekk xayba ba abadan bii mu rocc ko mu nekk shahada ba abadan ngay gis bi bi ci shahada bi te doo gis bi ci xay ba te bu sa contact daggee ci bi ci xay bu ñu fàtte la parce que dañoo xam ni doon nit waaw te it sécurité la sécurité la nga nekk fii nekk fële sécurité la te ban na nekk nag nit ñee ko wutul rek ne buñ ko wutoon it am ko li Maodo di wax ni suñu diggante ak ñi nekk xëy ba ne bu ci rideau doon nekk ma ni rideau bu woyof la ba tax na kon ñu seet rekk naka la defe ndax dañu fekk àdduna bi sotti bi muy laata sotti nag lu nekk xew na te it booba nit amul nit lañu mujj bind ba ñu ko bindee ba noppi borom bi wone na ni am na ci moom fierté ndax bind na ku yéeme am na ci moom fierté ndax bind na ku yéeme est-ce nit xam na ni yàlla am na ci moom fierté foofu la foofu la problème bi nekk waaw su ko defee fa mu tàmbalee ak yonent bi foofu la waaw kaanata ratqan fa fataqnahuma wa jaalna min almaai kulla cheyin xay fekk foofu maa u bi firi ndox suuful la fa suuful waaw ndax suuful moo jur ndox yàlla dina waxe noonu fekk lëf mu jël ko tudd la muy nar a nekk dina waxe noonu waaw moo tax sàggane waxu arab xaru la képp kuy taalibe yonent bi te mu yitteel la waruloo sàggane waxu arab surtout bu dee bosam bi muy waxee moom yonent bi waaw lu mat a toppatoo la waxuma la nag waxu ka ca kaw nga xam ni mooy borom bi nga xam ni yépp moo ko dajale ci téere bi moo ko waxal boppam ndax yonent bi ba mu ca tolloo di def commerce ña mu tollool ay at la daan àndal yàlla dogal bu ñu demee moo ca doon gëna a néewi wax waaye suñu soowoo ba àgg fenn su àddoo ñépp koy xool di laaj fu mu nàmpe loolu fekk na du nàmp kese kese yàllaay wàcc ci moom dara te moom noonu la bu dee wàcc sa alkande danga koy xam bu dee wàcc sa yiw danga koy xam waaw te du tàyyi nag su dee wàcc sa alkande danga koy xam su dee wàcc sa yiw danga koy xam waaw ndax du xëy def ko dafay wone rek di wone ba mu wóor la ni yow mi yàlla ngi wàcc sa alkande wala muy def di préparer ba mu wóor la ni yow mi yàllaa ngi waaj sa yiwte waaw loolu mooy li ci nekk ba tax na looloo tax yonent bi su àndoon ak moroomam yi di def commerce bu ñu tàmbalee wax rekk dafa déglu ku mënul déglu la nag su dégloo ba ñu àggal mu sànni ci ay baatam wante su ci sànnee ay baatam ñoom ñépp a koy xoolaat di laajte fu mu jëlee ni muy waxe waaye fekk na moom yëgul loolu waaw fekk na moom yëgul loolu ñoom ñoo ko yëg te te dara dikkagul dara dikkagul waaye yëg nañ ni kii di wax daal li ñu bokk namp moo leen ci man te duggul ci benn université nag loolu moo doy waar su ko defee ñu nekk ci loolu nekk ci loolu ba yàlla dogal buur bi jëm ci dajale téere yi pour def ko benn tudd na ca tawraat tudd na ca injil تدنا شي فرقان واو ناخ دا فاي ايرارشيزي واو دا فاي ايرارشيزي اوفيسيلمون لولا تخ بو موني تورات ني انجيل واخو القران فرقان لا لو متا خامل سوكو ديفه نك يونتي بي دي موسى رك di naw isaa rek ak di naw boppam waaw loolu la yàlla dogal lu mat a bàyyi xel la mu mel ni kon man mii ku sopp Moussa laa la yàlla xam na ko waaw kuy faral di jàng mbiram laa te dama bare ay wëllëre yoo xam ni taalibeem lañu waaw bu ma amee des ennuis avec les musulmans, je suis obligé d'aller prendre contact avec euh, les gens de, de Moïse. waaw ndax dafa am lu ma yëg ci ñoom waaw te li tax ñu tuddee ko kalimullah interlocuteur par excellence yàlla ko ko tuddee yàlla ko ko tuddee ku am solo la te ci jamonoom nag xam-xam dafa bare ndax na mësul nangu mukk boroom xam-xam jël contact ak peuple bi moo tax ku ci ñëw rekk mu dugal ci pale bi ndax dafay ragal boo jëlee contact ak peuple bi yee leen te peuple bu yeewoo dootoo leen jëriñoo ndax dañuy xam lu ñu war a nangu ak lu ñu warul nangu waaw loolu tax ma ko nangu ñepp ci biir la leen di dugal ci biir pale bi te ku nekkit mu ni na nga na nga jàngal fra euh, Moussa ndax moo may don te xamul sa lu xew xamul sa lu xew ñu di ko jàngal di ko jàngal di ko jàngal ba ki ko doon jàngal ilmul xisaab li ngeen di wax mathématique di ko ko jàngal ba won ko ni ko baaraam yi ni mu demee bu demewul woon noonu doo mën a téye dara foofu la commencé di xalaat waaw xalaat ni kon am na beneen mathématicien boo xam ni moo yilif mathématicien yi ndax mosul xalaat ni baaraam boobu njëriñ la am waa defe nga ni yaa ko moom nu la neex rek nga jëfandikoo tabarkal la tabarkal la jamonoom nag bare na bare na lu ñu découvrir ci wàllu plante yi surtout bare na tee yu ñuy naan léegi te ci jamono boobu lañ ko découvriroon moom ku soppoon plante yi la daf ko daan fajoo daf ko daan fajoo ndax ñu ngi ko jëlee ci Firawna na li ëppoon ci lekkam mooy mbuum mbuum mais seen mbuum dafa woyof dañ ko def supp di ko naan dafa wéral seen yaram sirtu espèce su caxat la mbuumu caxat dafa wér ci nit waaw ñoom ñoom àpp ñu ca ne am nañu alal dañuy lekk lu neex dañu àpp ni rekk nit war na wér kon na lekk lu ko wéral moo tax suppu caxat lañu daan def tudde ko muluxiya moom lañoo jox seen gan boo naa ne sa yaram yëpp dafa tàng wallaay waaye gis nga ñu nga commencé di ko yàq na ñu nga commencé di ko defar ba noppi di ci boole ceeb lu ñu def rek boole ci ceeb kenn xamul loolu lan la waaye ñoom no loolu moo leen daan dundal tabarkalla waaye fekk na yàlla moo xamoon ni yonentam boobu budget ba koy dundal ak ba koy former kenn rek ko am ci kaw suuf muy Firawna mu yabal ko fa pour ñu dundal ko ba mu duuf mu wàññee ko xeexal ko Firawna borom bay def loolu waaw moom du tàyyi xeex mukk suma gis mukk bëgg xeex ñeme ko kom sunu borom mukk du ca tayyi dara dara dara dara waaw ma nga ci guddi ma nga ci bëccëg waaw kenn xamul lool la jaral na ko nga tooñal ko yonent léegi mu alak dëkk bi yépp mu alak dëkk bi yépp lu dul xanaa bi yonent bi ñëwee mu xam ni nag jamono laajatul loolu الزمان والمكان moo tax Maodo daan na wax ni boo consulter texte yi ba noppi bala nga commenter interroger le phénomène yi te phénomène yi ñaare li ci gën a jege mu di az-zaman wal makan le temps et l'espace l'espace et le temps boo leen dul interroger boo consulter texte yi du la jëriñ tous ndax na ngay poser problème ci siècle bu jëkk ba boo ko ni poser ci kanamu exigence su troisième millénaire ci kàmb nga jëm du sotti parce que mooy doxal temps xam na ko mooy organiser espace xam na ko bu fekkee ni ci texte yi rek nga compter doo dem motax ak bab yi ñu tere len pour ñu tënku ci madahibi parce que madahibi sen borom dafa bari lu ñuy jëfëndiko texte te duñu interroger phénomène waaw lolo tax ñu tere len lolo tax ñu tere len pour ñuy tënku ci madhab waaw lu mata a bàyyi xel la motax tax Maodo wax na ko laa tax لا تغتروا بظواهر النصوص نانا بيتي تاكسي نانا رك كسي كسي نانا دخل نانا دخل نانا نانا لينيو تودي چوباري چوباري نانا لدوم سخنا lu doomu daara daan sonne jaamu yàlla pour bëgg a dugg àjjana ne daan naa ko def lu dul bi ma demee ba gis ni jaamu yàlla du dugal nit àjjana coobare moo ko ciy dugal seetal loolu xam nga loolu jox yàlla àqam la nee na lu nit daan jaamu pour bëgg a dem aljanna ci doomu daara daan naa ko def lu dul bi ma dajeek coobare ma xam xel ndeke ni jaamu yàlla du yóbbu nit aljanna coobare moo ko ciy yóbbu te loolu yomb na dégg parce que yàlla moom noonu la mel noonu moom nguuram nëbbu ko nëbbu ko nëbbu ko mukk bu àdduna amoon téeméeri milliards ciy nguurit mu def leen face ndax lool loolu la bëgg moo ko neex na ñépp xam ni moo leen man lu ñu bare bari mu écrasé leen ku mu ci écrasé wul tey bu ëllëgee mu écrasé la loolu moo ko neex te daf koy def waaw looloo tax nag kuy làqu ci gannaawam ngay làqu waaw looloo tax kuy làqu ci gannaawam ngay làqu waaw keneen ko làqu ci gannaawam mu boole la ak moom écrasé leen dara nga ci mënul su ko defee Moussa ku sonnoon la ci yooyu ba ci gis nga turu yi ñuy tuddee turu yàlla di ko sikkar ak ndax am xaalis mbaa siiw mbaa yu kenn xamul yëfi dof rek waaw ci bare ci moom la jóge wante mi ngi ci am taalibeem boo xam ni ku baax la dañ ciy waxtaan mag moom mu ni ma dégg naa seen réew ma am na sunuy tur yu ngeen di jëfandikoo muy gaañ nit ñi foofu lu tax ngeen di ko jëfandikoo te du turu yàlla turu ifrit la min afaritil jën ma ni ko xam nanu ko mu ni ma ku leen ko xamal ma ni ko sëñ kër Si waaw tàccu leen waay ma ni ko ma ni ko dafa am barab boo xam ni dafa am barab boo xam ni fa lañ daan jullee timis waaye fa lay jaar di doxantu timis waaye boo agsee rek dafay la muy jëkka laaj mbaa du ngeen sikkar ñu ne ko déedéet mu ne ah def na yëpp Hadj Malick def na yëpp waaw bu fa jógee Serigne Cheikhu ni ma Hadj def na lépp de wante boo gisee tànkam yi baaxul toogaayu sikkaru yàlla rek ko ko teg moom sëñ Babacar Si ma ni ko loolu Maodo seddeel na ko nee na ko ba ma la xamee ba léegi ñaari mbir laa la xamal waaw jàmbure ba mu ak foo di fa jàng sa àlluwa di fa jàmbu sa borom waaw yooyu laa la xamal waaye njàmbure gi nag lu ma tintinti la waaw la wax na ko ko mu mel ni foofu borom bi ni mu waajale yonent bi ku mel ni Maodo xame ko noonu xam nga kenn xalaatul woon ni coobare mooy yóbbu nit aljanna kenn ku ne defe nga ni sa gëg siggi dem Màkka ak rey xaru tabaski moo lay yóbbu aljanna ku ne lool nga foogoon ndeke yàlla yoonam sëriñ Aliou génn nee na taadibul mutiya alladi lam yasillah ne moom rekk ko sañ góor gële ñuy pamte pamte jëme jaanama lu mu def ñu ni masul mooy yàlla de parce que looloo ko soob caw bare la waaw yoonam moo tax Maodo coobare lu réyoon ci moom la mas na ci wax lu am solo mooy dafa wax ni nekk yonent yi yen yen lañ ëpple waaye gënuñu nu judd yonent yépp laa wax yen yen lañ nu ëpple ma gënuñu nu judd ndax nun ñépp Aadama ak Hawa moo ñu xam nga loolu bala nga koo xam xawa boo ko xamee ba noppi bala nga ko jëmee wax xawa waaye moom xam na ko wax na ko xam na ni yonent yi gënuñu nu juddu waaw ñun ñépp Adama ak Hawa moo ñu jur mu dellu ca la xale ba waxoon te ngeen di ko nettali mu reelu ba ngeen lii lu mu doon xale ba papaam dafa nekk savant bu rëy boo xam ne anthropologue la di ci liggéey liggéey yu yéeme te amul lu dul benn doom bu góor doom bu góor bi jékki-jékki ni ko papa ci lan fu nu jóge nun mu ni ko ci golo mu ni ko ah, naka la ñu def ba nekk nit mu di ko expliquer di ko expliquer di ko expliquer mu mu tey jeex xale bi daal xam ne affaire bi doxul mu bàyyi ba yaay ji ñëw mu ni ko yaay nun fu nu jóge mu ni ko ci aadam ak xawwa ñaari ñu tedd boroom bu tedd bind leen ci ñaari loxoom yu tedd mu ni ko ah te sama ni ci golo la ñu jóge mu ni ko moom moo jóge ci golo <laughs> waaye maag yow ci Aadama ak Xawwa la jóge ah yàlla te xale ba gëm loolu dugg ci biir eh, camarades yi liggéey waa quartier bi yépp ba xale yépp gëm ni seen baay yépp ci golo la jóge wallaay ndeysaan gëm itam ni ñoom xale yeeg seen yaay yépp ci Adama ak Hawa la ñu jóge bu ko defee rek xare ba tàkk waaw xale yépp di daw seen bopp ñépp ah waa quartier ba daje ni nañ ci sàkk pexe ñu fexe ba jàpp góor gi rek génne ko moo ki mu doon def yépp ni ko tas nga sunu quartier bi fekk xale bee ko tas moo tax dinaa ko di wax sëriñ Pape Malick mi di ko wax sëriñ Moustapha mi ni leen xale yey mujj yar xale yi des na tuuti mag dootul man yar xaleel buñ ko préparé dana baax lool buñ ko préparé wul yàqu-yàqu bu rëy dana am ndax des na tuuti rupture am waaw te bu amee gis nga yi mag ñiy wax naan xale yi lii xale yi laa mag ña gën a dof xale yi ma wax la ko nag waaw ku la ko waxul xamul sax lu xew mag ñi xamuñu dara ci lu ñuy wax dañuy soose rek waaw moo tax des na tuuti xale yi ñooy yar xale yi est-ce que xale yi doroge mag ñee leen yàq déedéet seen moroom yee leen koy jox mais ëllëg itam xale yi nar a jub seen moroom yee leen ci yar amul werante waaw parce mag ñi soow nu ñu yare xale yépp c'est fa suñu yéene liggéey rek nde ku am liggéey di nga tal leneen lu dul ni dangay yar ay xaleel xaleel yoo xam ne bokku leen jamono rupture am na sa diggante ak ñoom nga nekk fii di télé li ni da leen di yar danga nga leen war dimbali ñuy yar seen moroom yi waaye am na façon boo xam ne ci yaraate kooku si complètement dépassé c'est complètement révolu amul sax benat waaw defee nag mooy dëgg xale yi duñu nangu amul kenn ku sa doom nangul fi nga toll amul mën na la nax nag waaw waa dinaa def li nga wax may ma foofu lu ma jënde akara bu ma demee école ngay tës tësi dindi dara jox ko waaw waaw def ni ci bopp bi fekk nax na la bu yàgg waaw nax na bu yàgg bu dëddee rek ni vieux bi ni mu lakkale waaw loolu ciy mujj moo tax xoolaat ko baax na de ndax yonent bi waxul ni bàyyee yar xale yi dafa ni bàyyee yàq xale yi suma abawaa yuhawidaane yu yumajisaane waaw loolu la wax nee na bàyyee yàq xale yi ci aada te looluy dëgg moo tax seetaatal sa philosophie bala nga yar sa doom waaw su ko defee borom bi moom yooyu yépp mu waajal ko waaw yonent bi loolu cërëm la tabarkalla tabarkalla ah fexe ba tawraat ak injil ak furqaan mu boole leen benn tudde ko kitaab bi dalikal kitaab la rayb su ko defee ma ngi ko koy organiseel ma ngi koy organiseel kitaab bi téere bi def ko ñaari secteur secteur bi lépp luy ibaadaat rek def na ko ci dénk ko quraan pour mu gérer ko benn xeetu jaamu yàlla bu des amul yépp mu dajale leen def ko benn secteur dénk ko Qur'an pour mu gérer ko bu ko defee jaamu yàlla yépp nga fa ak jikko ya mu war a àndal diggante jaam bi ak boroomam ak diggante jaam bi ak moroomam jikko ya ko war a lal yépp lal na ko waaw environ bàyyi ma it defar nañu ko mu dénk ko Qur'an pour mu gérer ko benn côté bi tafakkuraat yépp a ngi ci ak ni mu invité doomu aadama ni ko kaay nu ànd man yàlla ak yow nga découvrir les mystères de l'univers waaw qul unzuru maada fi samawaat loolu la ko wax waaw xool leen li ci asamaan si nag jot na ngeen fexe ba àdduna yi ci ne ngeen découvriral ma ko sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim mën naa ànd ak yéen ba ngeen découvrir yooyu yëpp waxuma la yi ci asamaan si mais yi ci seen yaram sax xamu leen ko mais catastrophe la ah فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير لولو موي لي تي نك واي بو ديمي تي كوتي بي قران جيري nga xamni ibadat yep nga fa candidat yep nga fof ndax mo gëna yomb mo gëna yomb bo ñëwé ci li furqan géré do fa fek ñépp dañ koy daw ndax dafa jafe waaw moo tax nga xam ne dañuy naxanteek yàlla dañuy naxanteeg moom ndax tey yonent bi am na lu ëpp ñaari milliards yi taalibe ci kaw suuf seetal loolu te lu ñu soxla keneen na leen koy jaay est-ce loolu jaadu na waaye doo leen condamné néegum waaw fokk dafa am looy bàyyi xel waaw ndax côté furqaan dafa metti nangami junni philosophe a ngi la fay xaar pour weddi sa téere weddi sa yonent nangami junni savant yaa nga fa di la xaar pour weddi sa téere weddi sa yonent nangami junni boroom alal a nga fa di la xaar pour weddi sa téere weddi sa yonent looloo tax jullit yi du ko daw mu ngi mel ni kon li gën a yomb la ñu yéene yàlla jël sa satala jàpp julli fii ngàbb kurus tocc tocc boobu daal benn risque nekku ci moo gën nuy dem fële waaye fekk na fële bu ñëwul yëf yi manqué moom kay noflaay jeex na nag